Euh, merci beaucoup El Hadj maa ngi lay nuyu di la ziara jox sa yéeguwaay euh, di am kontaan rek ci laaj bi nga xam ne laaj nga ma ko man làmb moom ku ma ci laaj rek dama ci sawar a tontu parce que moom laa xam moom laa fowee moom laa jàng mooma sax comme ni ko mbëri di waxee mooma sax jàng yàqa sax suma jàng donc 83 laa ci dugg donc kon njëkkee suma carrière ci écurie Soumbédioune bu commencé Saramé yàlla na ko yàlla yërëm sama lépp foofu laa ko commencé ci ci kanamu Mor Fadam ñoom Sakka Dior ñoom Serigne Ndiaye ñoom Cheikh Loum waaw donc foofu daal laa commencé sama carrière di dem di dem euh, donc loolu sant macha allah. waaw mais defe naa jaar na écurie Fass. ba ma jógee ba ma dem Fass parce que aussi boobu jamono Fass mag la te dama fa demoon expérience parce que xamoon ne au plus dinaa fa mos a génn créé sama yëfu bopp. donc moo tax ma jaar Mermoz jóg fa dem vraiment aussi ba ma demee jàng naa fa jàng yu am solo parce que fa laa fekk ñoom Mbaye Guèye ñoom Papa Guèye ñoom Moussa ñi ngi nekk ñoom nekkin bu rafet ba ma demee ba mu leneen nag jot na pour ma ubbi sama yëpp ci laa waxtaan ak ñoom si njëkk si teraanga tàllal seen loxo ñu ñaanal ma ma wal tey écurie Soumbédioune jun am fii ngeen ñu fekk tey bi ngay bëri ak Eumeu Sène ban écurie la la fekk waaw fekk na ma écurie Soumbédioune la boobu parce que sama premier combat ci écurie Soumbédioune maag xam naa ne seetaanoon <laughs> Bombardier ba tey ah soo waxee combat bi gën a métti sa carrière booy Kaïré parce que boobu mu koy dafa dundoon xale nag am amoon kàttan nag waaye moo pour nga expérience nag moo waraloon nag combat ba métti woon donc premier combat boobu maag Bombardier la woon la. bu ma si jógee en 2001 si laa bëri Eumeu Sène waaw daan ko tamit jël bu rëy boobu ba tey moom la moom la gars yi di wane. <laughs> waaw mais Kaïré ñu gis la bi nga ci jógee nga def sa jubilé mais nga nekkoon aussi président des lutteurs en activité. mais jamono yooyu nga nekk jiitee mbër yi lan nga jot a def. waaw li ma jot a def bëri na mais xam nga euh, yenn saa yi si sam ay nga nal lu bari jamono yooyu fexewoon naa ba mbëri dem loo xam ne mosul am waxuma ne parce que jamono boobu kenn xalaatu woon ne mbër war na mën a dem université jàngi mais ak mbaaxu yàlla fexewoon nañ ba mbër yu bëri demoon nañ fa jàngi ñu ñu amoon fa ay professeurs yoo xam ne man damaa mujjee waaru sax parce que dama ne waaw man lii kon daal ku dul ku dul laajte wala ku dul dox doo gis lu bëri. ñu dem ba di fa jàngi comme ni élèves yi di jàngee di dem di jàngi di wàcc di gontu mu doon affaire informatique macha allah donc bëri na nag lu bëri loo xam ne nag naloon naa ko mais instant boobu nag mooy bi fi président Abdoulaye Wade nekkee maa ngi koy maa ngi koy nuyu di ko ñaan di ko jox wàccu waayam vraiment li sama projet bi gënoon mag mooy li ma li góor googu yéene woon mbër yi ne dinañu def dinañu defal mutuelle deux milliards boo xam ne loolu bu fekkoon ne tey ji yàlla dogaloon na mu nekkoon fi ba tey heure bi moom ba kan waxatu ko ba léegi mbër bu feebaree du doo xalaatu dem sax di faju ji wala ñu lay ketal donc loolu daal moo doon sama projet boo xam ne naa ko def ko sama xol mais nag yàlla mooy dogal aussi noonu la demee waaw. bon bi nga jógee ci les lutteurs en activité yàlla dogalit euh, nga mu nekk ci anciens lutteurs yi ba ci ban ban quoi ban ban fànn nga bokk sax ci ñan nga bokk. waaw yàlla dafa def macha allah gis nga àdduna day dox te gis nga nit ku baax ginnaawam des fois dana yu bëri da ci feeñ muy Mor Fadam bi mu génnee àdduna. mbër yi dañ ci taxaw taxawaay bu am solo maanaam li ñu dajale sax yóbbul ko kër Mor Fadam loolu mosul am ci làmb mbër yu mag yi mbër yu ndaw yi nekk bitim réew ñu nag ñu toog waxtaan ñu nag ñoom Moustapha ne lii nag jot na pour ñu créer association moom moo waral ñu créer association des sages de la lutte du Sénégal mu doon association boo xam ne c'est la première fois mu am euh, ci làmb parce que ñi nga xam ne ñooy ay mbër nekkoon bitim réew ku ci nekk yaa ngi cotiser soixante-cinq mille par année. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ak mbër yi nekk fii ñu ngi cotiser quatorze mille par année déjà à l' de six mois rek fi mu nekk ay millions lañ yor suñu kees ba pare confier ko koo xam ne ku jar a confier la muy El Hadj Birahim Ndiaye ci njubam ci dëggoom ci ragal yàllam ci doon taalibe tey ji alors xaalis boobu yëpp ñu ngi ko jël dénk ko ko waroon nag jëm suñu kanam pour def ay projet yoo xam ne incha allah fii ay at ci kanam dinañ gis nañ dem ba li ñu yéene mooy que dootuñu xaar promoteur di tëgal euh, mbër làmb dootuñu xaar kii que ce soit di tëggal mbër euh, làmb dañu bëgguñu association bi suqali làmb loolu ñu tax a jóg. te ñu ngi ci ñu ngi ci tànk yooyu parce que ngeen judd même pas 6 mois mën a dajale millions yooyu loolu du ay caaxaan te di ngeen si xam dara ci kattanal yàlla. waaw mais bi ñu jógee ci loolu xam nga ne gis nañ fan yii daal booy Kaïré ak CNG daal doy na waar. man kenn dégguma ma wax si football kenn dégguma ma wax si handball kenn dégguma ma wax si karaté man si làmb laay wax parce que dama xam làmb takkoon ngémb nag démb. xam li nekk ci biir man saa yu may critiquer rek CNG laay critiquer te lépp commencé na feeñ parce que xam nga man magum waxoon naa ko laa woon yëkk na dugg na fa génn na am lu mu doon wax loo xam ne man maa ko doon wax ay at barki démb nga dégg arbitre yi arbitre yi wax ay wax gedd sax ba arbitre wuñu weekend boobu xam nga réew boo koy tabax nañ koy tabax ci dëgg am réew dëgg mooy doxal réew Matar Ba bi muy def les assises de la lutte bu fekkoon ne ci dëggu la tegu kon heure bii munoo def ay assises pare nga jóge fa làmb ji dee munul nekk. assise nationale de la lutte munoo ko créer en tant que ministre des sports après assise yi nga woo composante yëpp de la taxaw assise yi pare làmb ji gën a kon y' a problème parce que loolu ñu doon def bu ko tegoon si dëgg day dem kon bu ko tegoon si dëgg Yékini du fa jógee bu ko si dëgg Gaston du fa jóge bu ko tegoon si dëgg Aziz Ndiaye du fa jógee ko tegoon si dëgg ñu bëri génn nañ CNG parce que bañ duggee ci biir xam nañ ne ñii maanaam dañoo euh, jot nañu bàyyi làmb ji. Sénégal rek nga gis lamb rek nga gis kenn ku ko diriger vingt sept ans de carrière de vingt sept ans nga koy diriger ba ba tey doxatul da war a xam ne dafa jot na nga dem. mais gars yi nee nañu bi fi Alioune Sarr jógee kan moo koy remplacer. loolu wax ju ñaaw la bi fi Senghor jógee ku ko remplacer limal ma Abdou Diouf bi fi jógee ko remplacer Abdoulaye Wade bi fi jógee ku ko remplacer mais àdduna ko bu ñu nee Alioune bi fi jógee loolu erreur la bu ko yi di wax. parce que sénégalais bu ne mën nga doxal lamb yow tey ji Ousmane ku la joxoon lamb nga nga diriger ko. nañ leen teg mbir yi si yoon affaire yi dootul ñoo bokk Fatick Fatick la Alioune Sarr dëkk man ministre bi Fatick laa dëkk ba tax ne doo jël mbir yi ko si yoon loolu loolu du Sénégal Séné. mais lu jiitu loolu lu jiitu loolu. Euh, ma ne un république nañuy def la ñuy def lii yoon ñu koy doxal. Alioune Sarr mënu fi nekk vingt six ans nga ne fi doo dem làmb ji di gën a dee ñëpp xam nañ ne làmb ji dafa am ay problème dama ne même kooku sax daf fee yàgg ñaame Diop boobu sax daf fee yàgg même ñaame Diop ku équipe boobu cest boobu yëpp. commencé ko si ñàmbe dem ba si suuf ñoom ñëpp dañu war a dem ñeneen ñëw ñu doxal làmb ji donc na ministre bi jël ay responsabilité xam ne li du ay caaxaan làmb ji mu ngi yàqu làmb jaa ngi yàqu boobu ba tey ñu leen koy wax nanguñ ko dégg mais nañ leen dem rek saa yoo di nga si dégg lu bees mennum kay la ngay dégg moo koy wax si kaw mooy leen ñii nañu dem ñeneen ñëw làmb ji daal di nekk euh, daal di jóge fii dem beneen euh, fu sore sore mais tant que loolu amul parce que nañ waxante dëgg ñoom dañoo sonn ay mag lañu mënatuñu dem àdduna loo gis xale moo koy doxal mais xale yaa ngi fi nañ jël làmb ji jox ko xale yi ñu. yaakaar nañ mën nañ ko jox làmb ji mu téye mais du jeex tey su ma la fi doon limal. booy kayre <laughs> nee na booy kayre boo nee booy kay sax mën nañ foog ne li may wax sax problème mu la parce que bu doon man xanaa xamoon ne bu dul woon problème d'intérêt kon man doon naa dugg CNG bi mais dama ne ñoom tànk ñu fi man du ma dugg te ba ma waxee loolu xam am naa fu ma ko tegoon mbër yi nga xam ne duggoon nañ fa am ngor am jom. mu Yaxya génn na mu Yaxya mu Yékini bañ fay dem du mbëri ñoo leen fa yóbbu décret ministériel lañ fa demee woon mais ñun xamoon nañ ne ba suñu fa demee parce que la fa nekk ci biir ñoom duñu leen ko wax dañ leen koy nëbb te boo fa nekkee am jom doo fa toog da ngay génn dafa géey nga foon te sa xarit génn na yàgg na <laughs> génn na yàgg na Yaxya génn na yàgg na Pape Abdou na yàgg na du jàngee ko génn na ñoom ñi ña fa demoon ñëpp génn nañu bu dee ñu jom nga wax ku bugg a am vision doo fa toog doo fa toog nañ waxante dëgg. gisoo na làmb aussi dafa feebar ndax association yi bari na ànduñu nitu làmb communicateurs yi jubóowuñu ancien lutteurs yi ku ci nekk ak sa association promoteurs yi xar na ñaar euh, amateurs yi xar nañu ñett mais est-ce que du loolu bu ñu boole woon xool yi état gën ñoo wekk. dama ne la loolu yëpp ño loolu li nga wax nii lépp ñoom rek ñoo ko indi. responsabilité bi yëpp CNG ñoo def lii ñoo tax nit ñuy xiiroo di ŋaayo parce que waaye Ousmane li ma la wax man xam naa ko ñi nañ def rek ñeneen ñëw tant que loolu amul pro day am problème rek. parce que li nga xam ne war nañ ko liggéey pour ñoo ñëpp doon benn ñoom duñ ko def na nit di reyante seen biir di diviser pour mieux régner rek loolu la ñuy def diviser pour mieux régner. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne kontaan naa seen ñëw di wax ne daal ñu ak yéen ñoo far. li ñuy wax yëpp bu defar làmb te kan pour làmb defaru moo tax parce que mënuñu euh, làmb lañ bokk moom lañ am moom mooy suñu sport national te lii ñuy wax nii pour ñu ñoom ñu téye ci ay leçons. non du Alioune Sarr Alioune Sarr itam mais CNG bi lépp maanaam ni muy doxee CNG ni muy doxee système bi moom la ñu war a changer dafa yàgg il faut qu'on le change gërëm ñëpp di sant ñu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.